ci julli ci gannaaw bu nu sant yàlla julli ci yonente bi seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi baal xaq ñépp di balu xaq ñépp yàlla nu yàlla boole jëkkal suñu diggante ak moom li ci di ay rëcc rëcc moo xam muy wax walla jëf jëm ci moom walla ñu jëme ko ci waayam te dox ci suñuy diggante ba ëllëg ki si biir li muy wax ne daf koy dindi ci nit ba mu set wicc bala moo dugg aljanna yàlla na yàlla dimbale tàggale ñu ak loola ba suñu dem aljanna du am benn charte te ñu bokk ca ñay dem aljanna ëllëg amin tomb bi ñuy fas yéene fàttalante tey day jëm ci modèle bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon mooy ki nga xam ne yàlla moo ko yónni gannaaw ba mu ko tànnee yónni ko ngir mu def nit ñi nit mu niteel leen nga xam ne soo gisee kuy ñëw di dox di ñëw walla luy ñëw nga xàmmee ne kee nit la ca na muy doxe waaye saa bu agsee ci yow ak nite nekk ci moom loolu nag bi ko ko yàlla laata yónni daf ko waajal ci waajtaay wu ñuy waajal nit rekk wu ñuy waajal nit te ña koy waajal xam na ñuy waajale yàlla waajaloon na ko waajtaay wu mel noona bu ko raw fuuf sallallahu alayhi wa sallam ba ba mu agsee rek ba tàmbalee xàmmee ndeyjoor ak càmmooy ni ko wolof di misaale ñi yàlla xamal tuuti xam nañ ne kii kat bokkut ak ñii muy àndal waaye mag ñi am xam-xam moom xamoon nañ ne kii moom seenu fekkeek seenu wuute des na ko mës a dégg ndax bokkut ak ñeen daan gis sallallahu alayhi wa sallam bi mu tàmbalee toll ci ati looyu looyu nag wuute ki gën di feeñ ndax ñim tollooloon ay at tañ xam ci ay tur yu bari taarix ak siira nettali ko lu mu daan jëkkanteeg ñoom day mel na yàlla da koy taxañal loola moo cay jëkk ak luñ lu ko kam koy jëkkante luñ gaaw gaaw suñ masaan di kaf sax bay léwtoog ñoom moom ci ay at yuñ tolloole kum ci laal day mel ne aw xobu garab ci loxoom mu def ci lam ci bëgg a def te kenn musu koo daaneel ndax ka ko fa mu jóge la fa mu gemboo la bu ma ko mënee tudd na noonu lay yu leer nañ fu mu fekke ñuy waxante lu ñu war a waxante kum ci waxal danga nangu kenn mësu koo mën a dékku te lu baax rekk la mas di wax nag moo tax ñi yàlla dimbale woon am na ci kook daa bëggoon jëmmam ji rekk te yàlla tax bis ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rañaane dellusi di ko nettali fekkewut ba yonent bi wax waaye bañ ko nee sa waaja waxati na mu ne lu mu waxati ñu wax la mu wax dem na fii dem na faa dane su fekkee moo ko wax wax na dëgg lu wér la wax Seydina Abu Bakar Seydina Abu Bakar rek doy na modèle ci jullit yi li tax mu doy ab modèle nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko joxoñoon moo tax mu mat ko bi mu jaxasoo gut ak yonent bi mele gutoon ne mel mooy ki nga xam ne bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tolloo ci diggante wéradi yaram gii dal nit ñi moom la wax ne dem leen mu jiite leen moo tax bi mu fi bàyyi ko ki jëkk a wax ne man maa ngi dem jaayante ak Abu Bakr baat topp ca ndax lay yam indi dara gënu ca wér kii moo jiite woon yonent bi te fekk mi ngi dund sallallahu alayhi wa sallam yonent bi topp ci ginnaawam wala boog mu bëgg a dellu gannaaw bi mu xamee ne yonent baa ngi fi yonent bi puus ko ba xaw a tolloog moom tuuti ndax cër yi jaamu yàlla dafa laaj ak man foofu jàngale bu rëy jàngale mu rëy ma ngi foofu yonent boobu nag sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne suñu la laajee lu tax mu doon modèle modèle mooy lan waxi jamono la rek su dee ci marchandise dañ naan modèle bii amut fii amut faa barab sàngam lay bàyyi ko barab sàngam boobee muy bàyyi ko ñuy yéem barab ba ca la ñuy jaare bëgg modèle bi ndax jàppoon nañ ne lay jóge foofa mooy gën a def nii di gën a def naa loolu ñi xam marchandise xam nañ ko dañ koy tànn naan ana bi si jóge barab sàngam ñu ne bii la ñu ne modèle boobu laa soxla ndax natt nañ ko ci seen nattukaay ba mu gën ay moroomam sallallahu alayhi wa sallam li ko tax mu nekk modèle ci nit ñi nag mooy yàlla bind ko mu doon jinne walla malaaka waaye daf koo def mu doon nit ni ñun niroog ñun lool yor yoxo yiñ yore yor tànk yiñ yor yor gët yiñ yor di ko xoole di xàmme nit ñi di wax ñuy dégg di jëflanteeg nit ñi itam jëflante bu rafet a rafet a rafet boo xam ne moo tax ba mu wootee ñépp topp ko atte na ay diggante defaree ay diggante te fekk nekk gu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moo wax ci alquran ne yàlla moo ko ne qul innama ana basharun mislukum léeg-léeg nag mu wuute ak ñun loolu tax ñu di ko topp moo ñu raw moo ñu gën a xam yuuxa ilayya loolu waxoon nañ ko ay ay ambiya yu ko jiitu woon maa anta illa basharun misluna defe ne dañ leen di ñaawal fekk dañ leen di tàgg maa li hada rasul yakulu taama wa yamshi fi l aswaq fekk xasuñu ko waaye dañ koy yëkkati ndax nit balaa mën a doon royukaayub nit day niroog ñoom tey def luñ man bañ bañ ko caa toppandoo bañ ko caa roy buñ la laajee nu tudd nag muhammad sallallahu alayhi wa sallam la tudd am ñu koy wax abul xaasim ak yeneen dàkkante yi ñu koy dàkkante yépp kon turu nit la yore ginnaawam kenn xamul ñaata nit lañ tuddewaat turam woowu muy muhammad sallallahu alayhi wa sallam te seetluwuñ ku ko jëkk a tudd koo xam ne dañ naan moom lañ ko tudde waaye melokaanam lañ ci misaal muhammadun al amin as-sadiqul waad ba melokaan ya àgg ganee makka àdduna ca wetu safa soriwul dara fii ñuy wax sax makka tabatu makka bi fa am ni fi mu ne ni ñu ne moo doonoon kër abu talib loolu it ak niteem lay tegtale mën a joxañ ne fii la gën a at jeexit ju du far ba faaw la bisub altine fukki fan ak ñaar ci weeru gàmm dëppoo ak ñaar fukki fan ci weeru avril léegi tey ñu àgg ci anniversaire bi ci weeru avril booba ak digganteem ak Seydina Isa juróom-ñaar juróomi téeméer at la ak juróom-ñaar fukki at bi mu gënee àdduna ak bi bi muy gàddaayee Màkka toll na ci juróom fukki at ak yett ñu soog a tàmbalee natt tàmbalee natt ati jullit yi ci gàddaay bi gane na àdduna ba mu mat fukki juróom fukki at ak yett mu soog a dem Madina jóge Màkka gàddaay ci ndigalu suñu borom subhanahu wa taala te gàddaay googu waxuma la moom yonent bi ko def sallallahu alayhi wa sallam waaye jullit yi nga xam ne sax dañoo gàddaay fekke woon ko Madina suñ masanti natt imaam diis na ca boole kan moo njëkk a gàddaay ba ni fatxu makka amee kon gàddaay itam ci daraja yu yu mag yi la bokk waaye suñu borom subhanahu wa taala gannaaw bu mu ko tànnee waajal ko wàcca yam ko waajal ba indi ko àdduna fi nit ñi jaar fépp ak ya ca xew ci ay xeexoo yoo xam ne mus sa xew ci kenn ku dul moom ndax modèle la bi ñu koy yónni bisub ci weeru koor la ñaar fukki fan ak juróom ñaar booba ak bim gàddaayee fukki at ak yett la doon na rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba teg ci fukki at ak yett doora gàddaay dem Madina loola ma nga tolloog fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru août atum juróom benn téeméer ak juróom-ñeent waaye mi ngi génn àdduna it gane àdduna génn àdduna gane na àdduna génn àdduna it ci melokaane mbindeef suñu borom yi la bokk kon ci nit ñi la bokkoon bu doon leneen lu dul bind bi ñu yore ñaata ci yi suñu borom bind ñoo faatu noonu rek wala nit faat leen te xamuñu fàtte nañ bis ba sax ak barab bam ko defe waaye kim toll moo tax kim doon nattante wut ak kenn sax bañ naan moo toll ni kee toll naa moo fete kaw ñépp waaye suñ ne barab sangam la gane àdduna des na topp ak dundam lu mu yàgg-yàgg fan la génnee àdduna madinatul munawwara bis ba mu gane woon àdduna altine fukki fan ak ñaar ci weeru gàmm dëppoo juróom-ñetti fan ci weeru juin juróom-benni téeméer rek fanweer ak ñaar ci ganek àdduna ak seydina isa alayhi salaam suñu laajee ba xam nit ñi góor ak jigéen lañ ci xam melokaanu góor la yoroon wala déet wala jigéen bu bu fa nekk naan góor la am jigéen da nga naan mooy sayidul rijal rek diineem sayidul muslimin ngay wax mooy seen royukaay di seen modèle modèle bi mu doon nag tax na amul fenn ci diggante boobu mu gënee àdduna makka ak bi mu génnee àdduna man di den mun a war a fu mu fi defee lu ñu naan ay waji buru woon ak nangam ji ndax bi mu tolloo ci at yoo xam ne bàyyi may ma dërëm ak may ma ñaar dërëm fekkut kenn ci kaw suuf ku koy war a taxaw ba di ko may juróom ak ñaar dërëm ñi ko waroon a taxaw ñépp bàyyi ko nañu fi la ca jiitu mooy bàyyam way juróom bu góor ka ca topp bi mu amee at yu néew way juróom bu jigéen kaca topp kaca topp topp ca kaca topp topp ca ba bi ko suñu borom subhanahu wa taala yónnee yàlla dénkoon na ko soxna soo xam ne ku amul solo la ci moom kooko it bàyyi koo fi mu ne cundum mook yàlla waaye teewutoon lii jamono di wax débrouiller daa yàgga sukkandiku ci suñu boroom di dunde lu muy liggéey ci loxoom loolu it modèle la ci kon nit munta toll nenn ba waruta xëy dem di liggéey bi ko yàlla yónnee gutoon da daan sàmm ñu di ko fay sàmmaan ab sar bi sar bi loolu it am njàngata nga fi ñu bari ci ay yónent jaar nañ ci di sàmm ndax ku mën a sàmm ak jur ba du ruur te du loof buñ la joxee nit ñi du la jaaxal ndax nit da ngay wax muy dégg muy def ngay gis te jur la nga koy tere rek ci lay def ci lay dem di dem ba ko yàlla yónnee muy sàmm nag la jaaxaloon ñu bari ndax jur gi mu yor di leen sàmm faw day wuute ak jur gu keneen yore jur gam daan sàmm musta róoral kenn te buy ñëw day mel na nga bëgg gannaaw ba it daana yaxantu yaxantu goo xam ne moom itam yaxantoom googee ab modèle bu ma sëkk la ci su ma saan dem biladu Sham indi marchandise ci waxinu jamono wàcce conteneur bu ñëpp jàppee ba noppi buy wax njëg gi danaan bii nga yor yow bee diw yor moo ko gën moo tax bii nangam lay jar bee nangam lay jar moo leen wuute la ñoom ñaar suñ ko ne xanaa amoo bi mel nangam te gën a baax mu ne booba awma ko te nga nekk ba diw ñëw ba xam soo ko masaan dénk yóbbaaleel ma lii su ko mënee danaan ayca na nga ko laxase woon fa mu ko tegoon ci sa kanam booy ñëwaat fa nga koy jëlee si waat waxuma laa alal dénk ko alal joo xam ne da koy day dem ak moom fu ko soob ci misaal modèle la ci ndénkaan soo ko dénkoon ñaari junni yoo xam ne ay kayiti ñaar téeméer la soo ko koy laajaat morso ba ko laxasoon ginnaaw nee nga ko woon ñaari junni la yoo xam ne ay ñaari téeméer la du ko laqar ci waat di ko xool sa gannaaw yow ma ko joxoon yaa koy taqar ci waat mu mel na meloon moo tax tudd na al amin tudd na saadiqul waad te fekk yàlla yónneegu ko sallallahu alayhi wa sallam kon dundam gépp modèle la moom dong itam la yàlla wax ana nu ñuy dëkk ak moom la ko tam la ko la ci jiitu mooy waxoon na ak jullit yi ne ku ko soxla bul dem bul do- bul doon bu mu doon waxtu wu ne rek ngay jóg di ko dem di ko seet bul ko xëy mukk xëy suba teel ngay toog ci buntam di ko nekk mu ubbi lu ay teggin seen diggante ak moom digg ba cëg ginnaaw tusu diggante suba ak takkusaan bu leen jóg di ko seeti waaye ginnaaw gee it bu ngeen jullee gee ba reer ba noppi it bu leen ko def grand place boo xam ne da ngeen fay ngoon nali déedéet du ay teggin ndax ginnaaw bachar la ni ñun su yendoo ci liggéey bi ba ngoon jot dafa am xaq nag ñu may ko mu dal lu tuuti moom la alquran de wax salaasa awraati suba cuuy suba yaasin saar la ko mag ñi daan wax nga xam ne ganaar yu mag yi ñooy sogo yeewu kenn du ko xëy nit loolu day wéy ci képp koo xam ne rek boroomu cër la bu mu jëlee nag ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keneen ku dul boroomu cër bu mu jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxtu wala neex mën nga koo seeti ndax loolu tënku ko waxtu wala soob ndax kooku du kenn digg bëccëg it bokk na ci yiñ koy war a toppandoo royee mu doon modèle te ñu dox ba yàgg jamono fekk si ko ku jamono di fekk la moom sallallahu alayhi wa sallam diggante ñaari waxtu jàpp yenti waxtu genn wàll yenti waxtu genn wàll foofu du ay teggin ci yéen ngeen dindi ko seeti gannaaw gee noona ba julli ju jàkka di jàll ju julli jàkka ci suba si suba di jot ku taseeg moom ci jàkka ji nag mën nga koo nuyu te foofu it wuute na fekk ñépp yàllaa ko wutaleeg ñépp dama tudd baatu taseeg moom ci jàkka ja waaye moom nit ñi dañ ko daan fekk ci jàkka ja fa la dëkkoon day génn néegam rek dugg ci jàkka ji sallallahu alayhi wa sallam te moo ne am nañu tabax jàkka ci seen biir kër danañ toog yaari at duñ fa jaar duñ xam nu mel modèle lañ ko jàppe modd la modd ak modd ak modèle nag du benn tabax na fa jàkka kon du saa bu la neexee seeti ko nee na ci alquranul karim salaatu awraat mi ngi ci sóotu nuur ak ya ko jiitu waaye waxaat na ci sóotu nuur bu leen wanee gannaaw bay dem su ngeen ko soxlaa boo bul bu leen ko ne ee muhammad laa tajcalu duaa arrasuli baynakum ka duaai baadikum baada waaye yàlla dafa caa joxe misaal ne moom modèle pire la daf ne fu mu koy waxee yaa ayuha nabiyu lay wax wala yaa ayuha rasul lim tudd aw turam ci alquran bariwut te ba mu ko ciy tudd woowu ko dañ doon waxal da doon wax nit ñi kii mooy kan muhammadun rasulullahi walladina maahu ashiddaau ala alkuffar wa ma muhammadun illa rasulun qad xalat min qablihi rusul ak ma kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa xatma annabiyin waaye su koy woo daal yaa ayuha nabiy yaa ayuha rasul moo ci gën a ràññiku waaye nee na su ngeen dàkkee waxtu wiñ ko war a seeti ba seeti ko it bu leen ko jox loxoy neen bu leen ko nuyoo loxoy neen na ngeen teg loxo dara ci loxoom loolu mi ngi ci suratul aljidaal min almujadala ya ayuha alladina amanu ida naajaytum rasula faqaddimu bayna yaday najwakum bayna yaday najwakum sadaqa dalika xayrun lakum wa athar bu ngeen amul lu ngeen ko jox ngeen bañ koo jox loxo àgg suuf rek ne ko assalaamu aleyka ya rasulallah yam ca sallallahu alayhi wa sallam bu ngeen toogeek moom it bu leen jàkkaarloo moom ne ko xujj di ko xool di leen lamsal bóof leen moom rek moo am sañ-sañu di xool ku nekk na mu ko soobe te bët yërmande ne la koy xool waaye xar kanamam ba nag néexuta dem ba àgg ca moom te doo ko xool waaye na doon xol bu yam rek boo xam ne du ko teg kersa buy waxit kum laajut bul wax ndax kum laajut soo waxee la ngay wax su dul noonu su duggee noppam yàlla noonu la koy dogale musiba am bu dee bu dee bu dee leneen wax na ba yàgg mu ne tey lu ma waay laaj ma tontu la lu ma waay laaj ma tontu la nag bokkut ak lu ma waay laaj xam naa ko am ku koy diingat ne ko fu ma bàyyikoo nii ak nu ma tudd ak fu ma jëm bu ma jógee fii mu ne ko cig ma yàlla nga jóge diw sangam sant wiñ lay tu- santale santoo ko ndax kiñ la ne mooy sa baay du sa baay te boo jógee fii sa war a nga jëm moo tax alquran ne yaa ayuha alladina amanu laa tasalu bu leen laaj yonent bi an ashyaa in tubda lakum tasukum bu leen laajee ba ngeen di wax it bu leen ko gën a kawe baat bi ma njëkk a wax mooy yaa ayuha alladina amanu laa tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulih bi ma mujj a wax mooy laa tarfacu aswaatakum fawqa sawti annabiy wala tajharu lahu bilqawli bilqawli ka badi badikum li badin an taxbata amalukum wa antum la tashcuruun waaye su yàlla dogalee mu bàyyi koo fi itam waa këram bu ca xel daj di ca jël kenn ndax du seen moroom bi muy wax banaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na nga jël soxna ku bokk ak yow lii bokk ak yow laa loola jullit yépp ko bokk ñooñee mu lim ñooy gën ñoo gën ci ay soxna ndax noonu la ñoom la tànnal yonent bi inna ahlalna laka azwajaka allati aatayta ujurahunna wa malakat yaminuka mimma afa allahu alayka wa banaati ammika wa banaati ammatika wa banaati xaalika wa banaati xalaatik waaye daf ko caa tegal loo xam ne moom dong moo ko sañ wa mraatan muminatan in wahabat nafsaha linnabiy in arada annabiyu an yastankihaha xaalisatan laka min duni almuminin loolu mi ngi ci suratul ahzab waaye bu fi bàyyeekoo bu kenn xalaat ci waa këram lenn lu def leen ay waajur maa kaana lakum an tu'du rasula allahi wala an tankihu tankixu azwajahu min baadihi abadan ci kersaam gu bari am na xew amoon këram ci yi muy niru nirulu nit bu doon suñ jamono dañ naan ak ciit gars yi daf bu ñu xëyee ne maa ngi nekk ji xam nañ ne ciit ci kaw gi bu yàggoon ay bis lay am dañuy xëy di togg laaxi karaw ak soow mu baax di ci def tiir ak diwug ñor su añ jotee ñu def laax bu ne mel sànqal ndax mu teel a rees ñu mën a reer ci cere lay ku xëy ñëw bu bëccëgee nga ñëw bu ngoonee nga ñëw yàlla ne déet warta demee nii ak kii ndax bokkut ak yéen kuy ñëwati négal ba mu woo la bu kenn ñëwati te néewul demal wool ma diw loolu kaw gi xam nañ ko bu leen wooyee ba ngeen ñëwit su ngeen lekkee raxasoo ji leen ca mbedd ma waaye bu fi kenn toog di ko wéti ndax day am kersa ak wax leen ko te du ko mën a wax waaye yàlla mii di wax ak yéen moom rusu kenn ya ayuha alladina amanu la tadxulu buyata annabi illa an yudana lakum ila taamin gayri nadirina inna walakin ida duitum fadxulu fa ida taimtum fantashiru wala mustanisina li xadisin inna dalikum kana yuti annabiya fa yastahi minkum wallahu la yastahi min alxaq dem na ba su ngeen jógee fitna kay wuyu kër ga nga fàtte fa sa kaala wala say lunette bu doon ci jamono ñu ne portable boo ñëwee bul ne waaw yaa rasulallah ana li ma bàyyi woon fii ndax sa kër laa ñëwoon déedéet da nga ko wodd man de daa am sax loo xam ne bi may jóg léegi xam xamuma fi laa ko bàyyi xamu daa dama ko bàyyi kër ga wa ida saaltumuhunna mataan fasaluhunna min waraai hijab soxna yonent bi saa sallam waaye yonent bi ci moo leen fa andi koo xam ne nag bu fi jógee xel xalaatut di xool ñam dëkkaloon yàlla moom dong la waxal ana nu ñu dëkkee ak waa këram it ba yo loolu ma wax léegi ci la bokk sëñ bu mag bi newoon na maam Cerno Birahim bàyyi néegi jigéen ñi ngay dem mu ne sama néeg ndey laay dem mu ne ko soo su ma soo gisee ma di ko tere li muy sa néeg ndey ndey a tax néeg yi ñu ci des taxul may wax moo tax yàlla na ci alquran al karim suratul ahzab defal naa leen ci yonent bi yàlla bii ab royukaay bu rafet modèle bu rafet boo xam ne tuskare ñeel na képp ku bëgg a jóg wuti beneen modèle bu dul moom tuskare ja mooy ku bëgg yaakaar yàlla ëllëg ab safaanam yàlla ñu ci yàlla musal ab royukaay ngu noonu laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasanatun ba aaya ba àgg mu waxaat ci fu bari foo xam ne la muy tegtale mu ak doonag modelam bu yàlla tuddee boppam daf ko cay teg atiu llaha wa atiu rasula ak yoon yu bari la ku wan gannaaw yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam nit mën na koo def te du ko yëg ndax su waxee yenn kàddu yu jëmale ko ci moom képp yàlla du muyu na ko ndax yàlla da koo fonk am na fu muy wax ci suratu ali imran ne ku ku bëgg a nopp suñu borom nopp ni ñu def nit ba mu topp la bëgg la te dus la bañ ba faw da ngay bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibkumu llah nee na ku topp yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam moom yonent bi jaanam wàcc na loolu la woote woon ñu topp ko mu jox leen lem yor seen jaan wàcc ginnaaw topp ngeen ko su waxee wax nag ngeen dem ba jamono dox ngeen bëgg a wëlbati ay waxam wala ngeen bëgg a wëlbati moom ci boppam lam doonoon na ngeen xam ne moom jaanam wàcc na yéen a ci des ndax lam war na ko wax na ko dem na bàyyi na fi lim fi war a bàyyi waaye nag ku ko topp jub wa in tutiuhu tahtadu ku ko def modèle boo munta mel ni moom it danga raw ñu baree bare am na fi muy waxee ci alquran boobu mi ngi tere sàngara lu yàlla ak yonentam bi wax topp leen ko moytu leen di ko xoole benn bët bu ko bu dul bi ko suñu borom xoole ak xam-xam boo ko mën a dugal di ko fa xool di fa seet yonent bi di ko jàngat ni ñu koy waxee yonent bi du ku ñuy jàngat waaye ku ñuy jàngale topp ko kenn suñ tutaawil moo xam ngay ab faylasuf wala ngay ab physiya yi wala kiima yi yooyu wala la ci yonent bi dañuy dem ca moom jëli kay natt ci li ngay natt ci xam-xam bii ngay yaro ko si néew ndax fawqa kulli di ilmin alim alim yàlla la te moo ko ne sa nuquri u ko fa laa tansa nee na ab jur dëgg-dëgg daal mooy koo xam ne moom suñ ko ne yàlla nee na yonent bi nee na nañ def nangam mu samp xelam bu jëm ci suñ ko nee ñu bàyyi nangam mu samp aw xelam wan ko gannaaw bu sampee xelam jëm ci digg nga ne ko foo jëm mu ne yàlla ak yonent bi moo woote fee ma jëm fa lii la yàlla yonent bi àtte ci sa kaw mu ne nangu naa ko yàlla nee na ulaika humul muflihun loolu mi ngi suratu nuur innama kaana qawla al muminina ida duu dellu wax ne yéen jullit yépp maase leen ci taqwallahi te jaar ci joxañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su boobaa dana leen makkur feggul yërmandeem ak njëggalam yàlla nañu ci yàlla boole mi ngi suutul xadiid lu mu leen sant def leen ko lu mu leen tere bàyyi leen ko seen yoon bu mu nekk ci lu tax mu di ko digle seen yoon bu mu nekk ci lu tax mu di ko tere bàyyi leen ku def da nga jariñu ku defut dana gis li tax mu doon ko tere nañ moytu nag loolu mi ngi suutul xasr nañ moytu nag di wuute ak ab joxañam wuute ko joxañam nag weesu wut jéem a wëlbati jëmmam ji ne jëmatut penku léegi waaye soo wala jëmoon ndekete yan ñu ci yàlla musal nee na loolu fitna ju ne mën na caa juddoo fii bala ñoo dem ci àdduna fitna joo xam day daj kapp mbaadu fitna yii nga xam ne moo ñu topp moo xam muy ay wérati moo xam muy ay jàngoro moo xam muy yu kenn xamut yoo xam ne kenn xamagu nu mu tudd nee nañ tamit ngi dal nit ñi mbaadu li ñuy tudd yonent bi di ko tudd li ñu ko war a tudd moo ko waral ak jàngat gi ñu koy jéem a jàngat te fekk ja yàlla wax nañu ko mu doon ba noppi mbaa du moo ko waral an tusibahum fitnatun te al fitnatu akbaru min al qatl ashaddu min al qatl te bu ëllëgee adabun alim mën na caa fekk ñooñu yàlla nuñu ci yàlla musal ñun ñëpp nee na nag ku jéem a wax yenent bi wax jëm nii mu ni lii la bëggoon a wax te fekk ab jullit la moom nee na bu yàlla day rocc ku bàyyi ko loolee xam-xam boobee mu yor ba ci jéem a jàngat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da koy booleeg xam-xam boobee mu dem fu muy jëm jëm fa yonent bi jëm de moo gën yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne ñépp dañuy dem aljanna bu ëllëgee ba mu des ku bañ ñu ne ko ni ab nu nu nit di bañ a demee aljanna mu ne bañ maa topp bañ maa def may waaja ji ma yàlla def yàlla nu yàlla musal ca loola moo tax képp koo xam ne dañ koy déglu muy wax ab natt mënu koo weesu boo xamul li ngay wax nga noppi wolof day wax ne ku sëñ te bañ sañ a nangu déedéet ku sañ a nangu sañ ngaa bañ suñ ne la kaay ñawal ñu ab xaftaan boo bu la wóoree doo ab ñawkat doonte gis nañ la ngay bari tànk lool ca fa tayaree ñawe neel du ma tailleur bu ñu la daajloo taabal neel du ma daajkatu taabal du ma ministre bu ñu lay tabaxloo neel du ma maçon ñu seeti keneen waaye rus naa ñi ma koy daajloo rus naa ñi may ñawloo rus naa ñi may tabaxloo booba tabax bala jóg sax ku ne xam na fa mu jëm tabax moom mën naa muy lu nekk ba mu des dëng waaye dagg moo fi gën a jafe dagg mbubb moo gën a jafe taqale ko jax boole ko ba mu ànd daaj taabalit lu ci nekk taxaw fa mu war a taxaw ba daaj des ca loolu la gën a jafe foofu daaj moo tax yow la yow la moom am natt mënu koo weesu foofu laay jeexale am na kàddu yoo xam ne bu jubee day sikki sàkkaloo ña téewoon bu dëgër balaa ñuy xam li nga bëgg a wax rek day sikki sàkkaloo ña xamoon ñoom te jàppoon lu ëpp juróom-benn fukki at ci ginnaaw ñi nga xam ne demaguñ fenn itam da leen tàmbaloo xalaatloo ba xam la gaa yi nekkoon dëgg la am déet te mooy ne la gaa yi nekkoon dëgg la dañoo wax ne yoo wu ndaw daa ñëw fekk maamam mu ne làcc ci ab lal mënut a yëngal benn cër dañ koy xol mu bëgg a waxtaan ak moom ndax mag dañ koy jege di wax ak moom mu ne ko maam mu wuyu ko mu ne ko fan yi yëpp dañ may tàccu ma jaaxle ci maam ji ñot ñoti ba jóg toog ne ko nga ne lan mu ne ko fan yi yëpp dañ may tàccu rek mu ne ko ah doom waroo ma ko woon a wax de daal di jooy mu ne ko xam nga sa maam diw ja nga daan dégg mu ne waaw mu ne ko tàcc moo ñu ko xañoon limal ko ay maamam yu bari ne ko man mii sama wet gii dee ba mu wetam gi dee ba mënut a jóg fa mu tëdd tàcc moo ko ko teg yàlla nu yàlla musal ci tàccu yow moom nangu na lu nekk nangu na upp ko mu génn nangu na nga pomp mënu ko noyyi mu génn abal la sam nekk waaye tàccu moom bu dee góor la da ngay jidimal ay soxnaam su dee gone da ngay bu bu dee góor da ngay jirimal ay soxnaam jirimal ay goneam yàlla na nu ci yàlla musal te dëgëral suñu pas-pas bi nga xam ne alxuraan moo ñu koy tegtal bañ a déglu ab teewoloog nangam log moom bi mu xeweek léegi ku log log loggal ku log log loggal ku log mooy seex ci biir gémmiñ gi bokk ko bokk bokk ab xooxu màngo bu mag ku xool lex bi danga gis mu ne fëng mel ni lu newi kooku mënta wax lu set waaw bi nangam log xewee nag nga xam ne lu ci nekk dana ko jàngat waaye ba mu des tamit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xam ne duñu ay jullit sax xam nañ ne modèle la am na ñooñ moo leen tax a dugg ci diine am na ñooñ liñ jàngat jàngatuñ jëmme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye dañuy jàngat jullit yi ñaata yoon dañuy tudd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fépp ci kaw suuf lam ne woon doñ gi suuf sax bu taxawee wala kawar fu mu yàgg ba ba ker fekk ko fa lislaam dana fa àgg ñu bari loolu lañ seetlu bokk na ci ay kaawteef yu mu doonee ma dal alxuraan ji alxuraan foo ko gis ci àdduna bi wala nga dégg ku koy jàng lu ngeen wuute wuute am réew ay réew lu ngeen wuute wuute ab der boo ko déggee xam ne alxuraan la na nga ko xame woon rek la ko kooko di wax foo dem ci àdduna bi fekk ko fa mu mel na meloon li tax mu doon medale te yàlla ko ko def ku tudd yàlla da nga ko tuddaale ñaata yoon lañuy nodd ashadu an la ashadu an laa ilaha illa allah ashadu anna muhammadan rasulullah ku noddut teñ ne ko li xaamal bismillah dana ashadu an laa ilaha illa allah ashadu anna muhammadan rasulullah ku noddut li xaamut it nga xam ne dañ ko li xaamal mu bokk mu nekk ma mum am keneen ko li xaamit buy taaya dana ko wax ashadu an laa ilaha illa allah ashadu anna muhammadan rasulullah kon ku jaar ci moom ci anam gi ci gaa yi daan jaare muy tasaareel ko am njàngaleem mën ngaa siiw jariñu àdduna jariñu àllaaxira ndax dangay jariñ ñu bari waaye soo ci waxee leneen luy tax nit ñi sikk sàkka nit ñi ñoom danañu la fa bàyyi dem wëri ku leen wax yonent bi mooy kan dëgg-dëgg ndax yow xamu ko koo doon bay xam la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax bu dee Sénégal nga nekk bu ñu nee ki Sëriñ Tuubaa topp kooko duñ xam ne duñ ci caaxaan suñ tuwaa amutoon si ak ci addunaam jot goo xam ne ku jóg rek mu topp la bu dee ku dëkk région de Thiès Seydi El Hadji Malick Sy it lim ci bàyyi wane ne daw topp ku mën a doon rek te yonent bi la toppoon sallallahu alayhi wa sallam ba adduna bépp daj kon yàlla nu yàlla musal ci pexey seytaane te gàttandul ñu boppam te mare lañu ba faw bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak def ko ci suñ biir xol yi moom képp la ñuy laaj ci bàmmeel gannaaw bu ñu laajee pas-pasu nit ki digganteem ak suñu borom loo xam ci kii mu ne kan bu dee jurit danaan Muhammad xanaa ñu ne waaw mu ne wu kooku rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xaatamu nabiin wal imaamul mursalin sallallahu alayhi wa sallam mbiram tàmbalee jag su dee ko amoon benn pas-pas dañ ko koy junj junj du ci xam dara tàmbalee gis ay fitna ba faw aazana allahu minha yaghfiru llahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimin